am na ay nit ñoo xamante ne seytaani jàpp na leen ba ñu fees ak xel yu bon jinni yi di leen womaat di leen tourner ba jox leen kattan ñu dekk ci ñoom dafa amoon benn nit boo xamante ne ay jinni ñoo ko jàppoon ay rab ñoo ko jàppoon dañ ko doon takk sax ak ceen te kenn mënu ko woon a dekku ndax rab yi amoon ci moom ñoo amoon doole wante yeesu ci kattanam wax na jinne yi ñu génn ci nit kooku te bàyyi ko te jinne yi dégal nañ ko ba génn ci nit kooku yàlla wax yeesu wax na nit kooku kookule dellul sa kër te nga nettali lépp lu la yàlla def lu la yàlla defal